wóolu ciw dama lay rayal téej te bu jaraatee rek ma rayaatal la yow laay wër <laughs> ay waay boucan bi xew ci kër gi kontaan naa ci yow maa gën a kontaan man xam nga rek ci yow lay roy moom yow sa yaay waru woon jur man mi maa la waroon a jur man barki rasulullah sa jikko laa jël <laughs> yaa may jàngal kay waaye li nga def yaa ko tey yow foo ma defal lan foo ma jox la neexal bu am jom mère bi daal di bàjjan bi may neexal. di bëgg jàmm. muy ëllëw la kay lammi naan tàll tàll <laughs> tàll ba sama jot ci man koy dama doon tëmbal galaas waaye daloo ci. laa illah xanaa ko lu mel ni xeme. ñaw noonu laa ko bëggee ñëw ci kër ba ko tas. may wax sama papa ah, waaw maak moom kay ñoo nekkoon moo may bébé man ko sama yoon nekku ci. lijjantiwu ma ko sax. sa yoon ci matal sa mat yow gone sax du la yeb waxuma laa magum jëm. yow ya dal jappal fi nga japp bul bàyyi. mais sawar day no ni dafa neex barke yonent bi gis nga nag yow umu wan umu wan nak yow lay waxal gis nga ya. nak yow ku ñu wara wax ci ay mbiram nga yow umu wan yow kër gi lepp lu fi yak yaa ko yàq yow yaay yaay influencé ki mi kajaam lu ko neex mu def lu ko neex mu wax amna lo xamne waro ko def waro ko sétane gis nga lii ngeen di def mënul tere ba bébé mi du jawaru kaaw kon bu yeboo nga rafet ci lii ngeen di defante yëpp nag man mi la ko jiiñ dafa na ne man man man man maa koy jàpp di ko sol ak di ko jal ci kaw bébé te man defuma waxuma am na yoo xam ne xale yi ko war a def nga dindi leen ci waaye yaag yéen ñaar ñii li kii lu nekk ci xelam rek yaa ko ci def yow nag yow moom da ngay dëgër bopp mais di nga xam ne maa la gën a dëgër bopp lu ma bëggul du fi am yow defoo ñun ñu ngi def dañu ñu ba <laughs> ngeen doon def lu baax amul problème mais li ngeen di def dafa baaxul noonu nga yow yow dañ laa war a yedd yow yow umu woon dañ laa war a yedd yow magum jëmm mu day ni yow ah jàpp jàpp ka jaam yi di ko sol lu nekk nga wax ko defal bébé nii defal bébé naa ah kaa woo ma dal sama kaw te man waxuma defuma teguwul fenn nag lii ngay def lu tere mu nekk jabaram mhm. waa kaa yow la yëpp ma yebu ma de yebu man sama devoir moom laay def yow moom tawoo ma yow moom dinaa la lijjanti ba nga lijjanti ndax xam naa ne yow ku la sukkur moom di nga ne fër naaw dem sa yoon. fu ngay hmm. def hmm. yow la kaaw yëpp. dëgg fa yàlla. kuur ñu kuur suñu kuur rek. waaye Kaaw dëful Kaaw dëful ndax xam na ni yow mi yaay sol xale bi xam na ko de ndax wax na ko. wax na ko jëf bi laay xaar comme maa koy sol baax na man wax ji rek sonaluma de man jëf laay xaar. bon bébé. Hmm. bébé bébé franchement. Hmm. Euh, je suis très lan moo dangaa sonn wan. dafa dis de. dafa dis de ah, <laughs> xale bu ndaw. <laughs> oui franchement bébé. Hmm. man man man sama xol toujours dafa lay sentir loolu su ma koy wax sax bu yàggee sax day mel ni ay wax sànna si mbalit la. lan moo tax may waxoon na nga dem def teres lëtt lëtt sénégalaise yi lu tax doo ko def ma ko ndala euh, ko ànd naa ak moom hmm. dem naa mais dama jël rendez-vous après lay dem ah jël nga rendez-vous boo pare mhm. après ti Action. Hein? Ok. waaw eh, eh, eh, bébé. oui. pour te may après ngay dem ñu la les lettres sénégalais là parce que c'est ça quoi des fois il faut être sénégalais un peu traditionnel. oui demain. Demain. mais demain dem jël rendez vous après une mon ah, et semaine prochaine, après, tu pars pour faire euh, morade date. Oui. <laughs> C'était. Bon, euh, franchement, mm -hmm. man, mm-hmm. bëgguma me lu la Ça se voit. Ça se voit. Hein. Mais quand je suis venu ici, quand je suis venu ici, j'ai trouvé maintenant Fanny Moudi, Damay Gis, Ay Pelenya.

Hmm? bon euh, beneen bi muy waxaat mooy sa tante bi tamit ñëw na kono moom dafa dafa dafa dafa dolli kar bi ci kawar bi wàññi wu ko daal xam nga te bébé man xam nga ni yow bugguma dara lu la naqari mais tay li ngay ñaar dafa bëri te xam nga ni yow wéru ah keroog france bi ñu demee foofu lan lañ la wax warula mer lañ la wax bɔtɔpe fii dzekoga yi fii fi yi fii deŋe tsɔ wu gudi bɔtsɛ parce que dañuy tudd sa greffage nga ni noo ñu bàyyi greffage ñu téye tudd loxo nga ni noo ñu bàyyi loxo nga ni noo ñu téye pooj téye loolu lay def kon il faut nga muñ jusqu'où on rentre à la France jusqu'où on rentre à la France dadji oui xam nga man hmm. xaw ma yii c'est ça

waaw acca ñu acca réglé naa ok pour sama kàddu bàjjen man sax dama mujjee sonn ci sama bàjjen ah! avant muy avant muy ñëw sax doon naa nelaw tuuti mais depuis sama bàjjen ñëw ci kër gi nelawatuma te dafa bari wax sama bàjjen voix bi moo diis yaa ko sañ wax de gaynde buy jaay ndawal soo tëddee di nelaw hmm. mi ngi ñëw bu ubbee su ubbee port bi rek nga xam ne moom mooy dugg si dafa am doole. <laughs> kon gis nga loolu ma gis. dama mën masa dama sonn dama sonn sa su ma sañoon moom sax man. <laughs> di man xoolal bu loolu t'inquiète pas dinaa def le tout pour mu ñibbi bu jaree sax ma jox ko xaalis dafa bëgg xaalis ma jox ko xaalis jox ko ay greffage quelques greffage indi woon hmm. ma jox ko mu dem. c'est ça. que man sonn naa. c'est ça sax yow man dama sonn. non c'est ça man xam nga ñemewu ma la woon boo buggee dégg franchement en vrai dire des réalités ñemewu ma woon wax ñemewu ma la woon wax sa bajjan parce que xam nga bajjan si nit rek mooy papa. bugguma la woon wax naan la sa papa bajjan dafa dafa dafa lakkale sa papa ñemewu ma parce que bugguma nga mer kon comme yaa ko wax yaa ko wax. man dama koy ñëw pour mu gérer ma rek pour mu gérer kër gi jënti problème bi ñu bàyyi ma nekk si jàmm mais dafa ñëw kër gi mel ni lu ma la mënul wax comprendre gën indi ay affaire keroog maa ko atti ak acca su ma ko atti wul woon xeex acca dafa réew acca bàyyiwu kenn du yow je du may du may du kenn d'accord acca zina zéré mais eh, sama eh. bàjjen moom ma suñ ceen léegi kay xam nga lu ñuy wax naa ko rek nga ne ko bàjjen dama bëggoon nga ñëw dem dëkk ba ndax nangam nangam ñun dañu war a delluwaat voyage ndax xam nga. man léegi dinaa la jox xaalis. nga jox bàjjan. dafa bëgg xaalis nag dinaa ko jox xaalis. ma joxee man ko dinaa ko hmm. parce que dafa bëgg xaalis. ndax wala pour loolu. Eh. t'inquiète eh. ah. yow yaay te ma amul bàyyi. je <laughs> asante <laughs> seet li mooy nekk slip sinap ah sinap sinap ah man man damay dégg ay kii yooyu ah mais lii dafa rafet mais daji hmm? ba xam nga da nga boo ci snap bi dé ma may nax rek de dama naaj mhm. ah, <laughs> ndeysaan pourtant sama benn gel mus na ma wax lool waaw yow te danga doon wax ne danga may xaar ba ma génn ci biti maa ngi nii ci biti moo tax ma kar la fii. man dama lu waaye doon jaay rek tey lay lamb. xum man damaa coowul ci naaj bi tàng bi. yow maa bëgg coow coowal. yow kër gu sedd ngay coow ko ngay coow. kon yow amoo safara li ma la doon wax mi ngi nii. yow am safara. man maa am safara moo tax ma kar la fii naaj bu tàng bii boole ci. waaw léegi ma karee loolu xeexuma piip di nga xeex nag xeex bi moom xeexuma xulóowu <laughs> bëgg yow nag yaakaar nga ne di nga jam ba mu saf nga génn ci noonu di nga xeex du ma làng yow ci mbedd mi ma ne di nga xeex xulóowuma ah. um woon man xeexuma di nga xeex xeex bi yaa koy xeex far force waaw man xeex yow da ngaa bëgg naaj bu tàng bi nga koy xeexee du ma ko xeex nag da nga doon rëy làmmiñ rek da nga doon rëy làmmiñ tey dinga nga xeex far force laa wax waa léegi xeexuma nga ne da ngay xeex bañ a xeex yaa xeex xeex bi waaw ñëwal ñu xeex ko nag. ñëw da ngaa fii ñu xeex ko kon. Ah. ci naaj bu tàng bii. fi mu ne nii yaa fii laa ko soxlaa nag. am nga fit léegi ba mu taw di wax ñëwal laa du ma daw du ma daay man sama moromu jeeg du ma bërti bërte <laughs> waaw. Njuuma noo sant rek mu ne wele. da ngaa ah. ba ma neexee du tey yow yaa am fit nga taxaw fii naan ma damay xeex damay lii. ma am fit daw ma daay ma jigéen nga may jigéen yow lan laa lay daw xam nga ne ku ma woo ci xeex ma wuy si la man dinaa dellu gannaaw man koo ma woo ci xeex ma wuy si la daw ma ci benn yoon dangaa bëgg ñu xeex nan ko làngante fii <laughs> ah, ah. ah. waaye léegi mu neex waaw léegi mu neex xam nga ni kar bi dinaa la karaat beneen yow ah, bu doon woon kaaw may yuuxu waaw amu woon yow looy xaar suba yow jéggu tapet nga tapet dangaa neex ay wax ak balewu ma la na ñooñu eh, eh, eh, lang ko fii déedéet kenn langul ngente kenn langul ceer waxuma la xeex c'est ça. yow nga xamoon fait tout yor man dama daw non non non non merde pétain comment c'est ça Vous voulez? ma sonal mbéta bi voisine ngi koñ bi ñu ne tu day ha non. eh nous nag nañu waxante ngi naka alerte. wax ak yeen ngeen nakati naka di wax di wax ah xol ko kii aan nam do Modou lan moy xew yow xaw ma ko dama ni nga dimbali mak sen lak làkk ko rombu di dem mu teul ma ma diko baye non man ku dugg ma dugg la ba jeex yow Thérèse yow Thérèse yow Thérèse yow kan nga de yow ku tufo togoñu kono ku la day bamba tatam si mir bi ni day def ni de ah Bayi sa yoy man nak selu nana depuis nga ñew bo xar bi moom da ngay dolli kawar rek kon wàññiwuloo kawar bi ñun nag damay wax jàmm la paix laay gën a soxla si kër bi man pour man soo ñëwee nga fekk si sa doom si kër bi jàmm la paix ngay wut soo ñëwee ngay def loolu xam nga dama lay wax nag bu caagaan jeexee dëgg des ëpp loo ko taat moom ah ëpp loo taat gënu loo ko naka jeex moom ah dama doon bañ coow rek ñu li si des duñ ko àggale fii nañ dem kër nañ dem kër gi nañ dem kër an heroten heroten o sestetan nan jam ken nan jam ken dede hey hey hey hey silence silence pour les eaux silence pour les eaux jawdi ngay jaɓe garsen yow kaaw ñëw naa ci salle bi di la xool sànq fekkuma la fi. te boobu maa ngi si bi dama doon sangu pour changer. dama tàng waaw li may dégg moom lan la. coow lii nga xamante ne mbedd mi ñëpp a dagg man damaa génn ñëw di dugg si damaa tiir sax ma yemee ci nit ñi. kan moo doon coow. um rek encore ak Thérèse man toog naa sànq fi. mu toog boo yàgg rek mu dégg welelel welelel welelel welelel welelel koñ bi commencé nit ñi di daje ma ne lan moo xew ñu naan xaañ na ko dew ma gestu si kaw ma gis umu ak Thérèse ñoom ñaar ñuy nakati bëgg a tampalante ma ne ku umu he eh! umu he eh! fadam umu wax naa lu ne umu xaafaale wu ma pourquoi ça may ma wax umu wax umu xaar ma ma wax wax Thérèse mu wax ak moom nanguwul ma faale boo ma wàcca ci suuf je descendé ma gën a si mbedd bi fo sànni layu bi day taxi boppa nit ñi ah ñu ne xoolal jabar kaaw bi xoolal Thérèse sax moom warul xuloo ndax moom sama goro la te wax dëgg yàlla moo ma may bébé bébé su ma ko takkee c'est grâce à Thérèse waaye Oumou wan su fekkee dafa bugg jël depuis que bébé ñëw mu bugg ko def guerre des mondiales duma d'accord loolu non kaaw foofu moom duma ko nangu Thérèse bu la mayee bébé te doonul nitu jàmm danga naan ko mu tëye tànkam ci kër gi ndax Thérèse mënul heure bu dikkee ci kër gi coo am fi loolu mën na nekk foofu nga waxee baaxul bu la ko mayee tamit deful li ko war ndax mag la dafa war a ñëw lijjanti kër gi yamale bébé kër gi nekk ci jàmm mais Thérèse heure bu fi yendoo buy ñibbi ay coow la fi bàyyi. Euh, Thérèse bi yoon sax bi yoon sax ñu ngi waxtaan man ak bébé bébé day defal ko sukkin sokkin lay defal ko pour mu mu mu préparer bagage am dal di dem kon nekkul noonu bu dul dara sax su fekkee Thérèse moom tooñ na tooñ na tooñ na tooñ na euh, nowete umu umu nday ñëw si man kaw kaw mi momi ay eh, sa ba saba munuma kaaw ayi Thérèse o mono tooñe mi Thérèse wi kam dum wi kam dum wi kam dum Thérèse wak na ma li wak dam mu xool ndax man dina régler les situations ou pas je ne régler pas les situations man dal kaw xam nga lu ma bëgg sa kër gi régler ko ndax yow kaw fim mu ne nii yow nit ñi xamal lu xamewuñ la won sax wax mais actuellement ni ku nek mën na laa dugg ndax fi mu ne sa sa lépp a changé. mais ay sekk ku jëkk ak ñoom dangay welele. sa lépp a changé eh. li ma bëgg nag mooy sa kër gi képp ku fi na a ñëw di la indil coow. arrêté ko mu toog tere na toog ba ñu lijjanti kër gi. na toog fa mu dëkk loolu bugguma sax bugguma sax ngay wax ñoom wax naa leen ñoom dinañ ñëw dinaa wax ak ñoom man dinaa wax ak ñoom parce que bi ma leen jiitalee fële kenn ku si nekk da nga dugg sa ne ma ne leen su ngeen paree lu ngeen di def li ngeen fekk ma ci saal bii ma dugg si biir sangu génne naa préparé di leen xaar. bugguma wax. dama ni kon yow bugguma kenn. dama ni kër gi lu man noppi noppi noppi am na loo xam ne dama ko noppi waale ndax yow kër gi benn boo la fi am yow mi nangoo sax la ku la tibbal Thérèse warta yendu ci kër gi ñu yekk añ mu ne suur nañ nañ ko tibbal pour ndax ñu koy tibbal lu tax du bokk nit ñi. ah bébé tibb bi di ko yóbbu ci biir néeg ba pour lan loolu dafay mës a am. waaw waaw xam nga loolu loolu sax gan-ganalee la tudd gan-ganalee loolu gan-ganalee laa ko tudde moom loolu du wéy xam nga waaw xam nga tamit yow yaa ma mun a ni yow li nga mun a def stabilisation bokkul ak keneen umu wan moom umu wan moom gënee la wax ak umu wan rek nee ko Thérèse léegi mu ñibbi Umuan, wan naa jox respect naa ma jox respect umu joguma respecté ak lu bon di am rek umu won tang na way bi ba Thérèse ko toy moko ko de ay xam umu won xam nga duma ko far lima bëgg dal mom moy kaw li ngay def du continuer te du tax sa kër gi nek si jamm ku nek yamalé ko palaasam man nak ma ngi muñu rek ma ngi baye rek muy sedd Thérèse na tok ba nga la jëndi sa kër. non yow baye muy sedd toujours yow mom nay sedd dara yow ya moom ku bugg a gis jigéen bu bu dem bu bu dem aljana te deewagul bu yeboo mu xool la yow may ni sama situation yëpp yow yaa koy réglé. man xam nga lu ma jaaxal. waaw su tax ñun bi ñu toogee seen sànq ba tey seen néeg bi bëgg a waxtaan sa papa dañuy wër dañuy wër rek bu ñu bëggee ŋaang rek bu fël pour lan loolu sa papa. waaw xam na lu mu def dafa am lu mu defati. daf la dëkk xam na ni faa mu wax la ko waaw eh, daa ki ko luyee kër ga xaw ma Paa Njaay xaw ma neen kooku ya la may may. yow la sa papa di may Paa Njaay. mariage forcé. ca <laughs> mariage forcé ya, ba don, doon ya yow sa papa napp nañu de. ma ragalu ma ko xam naa am na lu mu teg ak paa bi dil lay doon rek mu bëgg maa dugg si mariage bi nag sama papa xam nga ne xaalis la jiital moom si léppam. sa papa lan moo ko dal mu mel ni ku xaj matt ak wala nga mu papa la war a may jëkkër. sama papa laa <laughs> moom daal bëgg xaalis daal moom moom la jiital alal daal la jiital. Mama da xamul ne on est au 21e siècle man la bëgg a forcer mariage non dootu ko defati. c'est que xam luma jaaxal dama am sama problème bo xamni dama doy seuk sino sama papa waye man sama boss doy na ma seuk ba may di la kalaameel. yow am de bi mën de yow bu la dara metti ko gérer jamono jamono ma takk ay sagar bu nga sa doomu di jangé takap sa doomu bajjan légui xalé yi. ñooy xool ku leen doy ku ñu bëgg ñu andi la nga may leen man dinaa fekk paa yi xobi daas yi naan damay dugg si ñoom di sëy ak ñoom dama bàyyi fi xale yu ndaw yi xalaatuma ko sax ay gémmil gee maa boo leer buy nekk ah jox bu boobaa papa napp na la papa Abdou Fall xamul boppam jabaate na torop na kaa kum ko war a sekkal waaye ama sa fulla moom la may paa de may sama bongo maan bee lu ma ci bax lu ma ci ñeer rek bax ko kenn du ko tere am nga ful la de ma bu jaree laa la wax mu simi mbubu papa bi si sa bañ nekkat sama papa jar na ko boobu def xalaatuma ko rek ba am li nga bëgg sama papa yow ëppal dégg dëgg man damay dem sama yaay di ma waxati yaa da ngaa mën dox waa léegi xam na ngay def comme ñun heure bu ñu ñëwee sa papa yéenduñu ba bëgg dégg lu xam fekk ma kër gën waxtaan inshallah def sax yow ñoo far ay allez